intérêt général bi la ci jiital ci yan anam dañu ne dañoo bëgg ñu jàppale ñu ci naka la ñuy dimbalee ndaw ñi ñu am xëy loolu benn ci ponk yu la woon mu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi beneen bi mu ngi jëm ci wàllum formation ak financement jigéen ñi am na lu ci waxtaanee ak ñu doon waxtaanal benn bi mu ngi jëm beneen bi mu ngi jëm ci wàllu euh, wàllu ak dimbali ñi nga xamante ne euh, ndox bi daf leen a sonal mooy les personnes impactées par les inondations notamment sur le programme PAP 2I bi naka lañ ciy jàppee pour mu doon mu mën a antu ensuite beneen bi mu ngi jëm ci wàllum dimbali étudiants yi maanaam ndongo daara yi nekk ci daara yu kawe yi tey nga xamante ne seen xarañte toll na foo xamante ne war nañoo mën a dem jàngi bitim réew beneen bi man yàlla def ma chef d'entreprise maanaam damay yëngu ci sama wàllu bopp sama wàllu liggéeyu bopp ma bokk ci ñi nga xamante ne dañoo am gëm-gëm ni que koom-koomi réew doomi réew moo koy ŋànk kàddu dama koy wax tout temps léegi

ne seetal boppam ci axulaay axulaay taalaam li ko doy mu defal ko boppam